ah man de sama xalat ak ni ma gisé taxi ak maki ni mu waxee yaakaaruma mané dina def 3e mandat dama foog ni rek dafa am leneen yu nek ci bir mais yaakaaruma ah bok jusqu'à preuve du contraire góob ma mukk ne Macky dina def 3e mandat parce que sinon li daloon Abdoulaye Wade li ko gëna a garaaw la koy dal te lolu souhaité wuñu ko comme liggéey ne ba nëgër ni man je crois personnellement que il va faire deux mandats man bokk c'est ma conviction personnelle voilà ok voilà troisième mandat bi nga wax Euh, su suma gis-gis en tant que ancien politicien euh, xalaat naa mu doon problème li tax muy nekk problème je crois que Guinée à l'heure actuelle ku nekk yaa suivre actualité donc répercussions yooyu war nañ ko mën a éviter au niveau du pays ah deuxième bi euh, am na ay doute pour mu engager ko parce que waxoon nañ fii moom jëloon na engagement na cinq lay def mais lañ mu mujjee référendum donc euh, balaa may ne mais ça c'est pas mon souhait parce que ce qui doy soulèvement populaire Le soulèvement populaire est à tenir les gens se sont braqués sur l'eau. c'est parce que les gens sont fatigués Fatigués bi micro trottoir bi ngeen def Si bu ngeen pas ndax nit ñi sont

tey ñun suñu solo ñun jigéen ñi na bàyyi def na def dër yam fa parce que liggéey na li muy liggéey rek na bàyyi keneen ñoo ñu xool def changement. non dëkk bi moom ak ñu mu mel ni instant yi moom Macky Sall yeewul troisième mandat. oui parce que dëkk bi dara doxul vraiment na dem abal ñu ci jàmm quoi moo gën wax ñu xool keneen loolu laa gis quoi. Macky Sall troisième mandat nu nangur Ablaye Wade le 23 juin su si insister sera ça sera plus plus pur ça c'est pas France mooy gën a pur. màggkaay Ablaye Wade le 23 juin voilà. ah waaw man de sama gis-gis la moom yaakaar naa waruma nekk moom ndax parce que loolu moo waxoon na ko ba pare moom ne woon na moom ci deuxième mandat ci lay yem kon nag comme wax ci góor comme comme maanaam waxoon na ko pare moom moom na xëy la yeneen gaa ñëw rek waaw loolu daal laa gis moom waa waaye allah na def dix mandat su ko neex sax mooy borom Fatick te jeune la nit ñi moom lañ bëgg man de moom laa bëgg man xamoon ak keneen waaw. loolu leer na nañ. waaw yow sonn si merci. <laughs>